si wet bi léegi dañuy bàyyi Fassar mu daal di nuyoo Fassar li ma laaj mooy lu tax nga lëj dèjà. man de ma métti chaque jour ku taxawal rek nee na ma bu réew wala Fassar bu la bi tamit tamit. xoolal ma euh, Fassar nga ñëw ci bés bi nga xamante ne euh, di taxaw di sargal Mame Boye Diao euh, delluwaat tamit di di. ndeysaan géew gi moom kañ ba kañ la bu ñu toogee ne fecckat yi jubóowul li ma wax sànq galbale moom laa lay wax bu ñu toogee ne fecckat yi jubóowul suñu biir waxuñu dëgg amul ku jubóowul du nduróole ku jubóowul du nduróole mu rafet fecc mu rafet sa morom feelu la nan bàyyi loolu ku ci nekk sa jiitu nag ci aar ñu ñëw topp ci ginnaaw kon amuñu lu dul mënoon ñu def leen ñu def bàyyi leen lii mu def nii moromam beneen bu ko ñëwee def keneen def ko barke Serigne Touba dinañ gisaat aar aar daa dee mais mi ngi suqali aar lii mu def nii bu ko fa def Fadel def Fatou Sarr mën def ki nga xamante ne mooy euh, Mbathio Ndiaye ñoom ñooñu ñëpp ñu ngi doon xaar gis fi Oumou Sow moom xam nañ ne dafa voyagé mais ñooñu leen fi gisuñu leen fi mu mel ne tey yéen seen génération bi yéen a gën a wuy si ndey Gueye waaw ñooñu mën naa ne tey amaana danoo jàpp mais tey Ndeye Gueye li mu woote nii bu ko wootee ngeen war a xam ne ngeen war a xam ne ne pour ñun la Ndeye Gueye li mu woote nii boo ko dégloo xool ko. nga war a xam ne pour ñun. génération nouvelle génération bi la. ndax boo seetloo nouvelle génération bi. ba ci sama bopp boole sama bopp. ndax mënu ma wax ñeneen bàyyi sama bopp. ba ñun ñun ñii. ñun mën naa ñun ñoo yàq aar. Mm-hmm. ñun ñooy jël aar sopp ko leneen def leneen def leneen. kon tey bu wootee ñun ñooy ñun ñooy ñu jéem a defaraat suñu toogaay ni ñuy defaraatee aar bi def ko fecc mi tax ñu naan fecc ñu fecc ngewal mu jéem. waaw waaw alors Euh, dekkal aar dekkal aar nag ku ko wootee gis nga tey ni nga ne noonu la nouvelle génération bi daal wuy see ki nga ne mooy Ndeye Gueye tey euh, yow ci nouvelle génération boobu nga bokk tey Ndeye Gueye woote dekkal aar tey lan la la def non dama kontaan ndax xamul ndax aar fecc bi daa deewoon xale yëpp dañuy lëmbal d'accord nañ lëmbal ci aar la boobu mais fecc mi daa deewoon te li dama d'accord bëgg naa Ndeye Gueye lii mu def nii mhm. fecckat yi fi nekk ñëpp ñëpp di ko def kii bu léegi bu paree keneen def keneen def keneen a fecc may jugaan barki Serigne Touba Mbacke mais nag dama kontaan doo ma laaj lu kontaan. sama patron Bassou mooy dem Qatar. mooy dem Qatar. déedéet waaw waaw waaw yow fi mu ne nii coupe du bi moo ko ci loxoom lañ ko teg. Eh, Sénégal ñetti nit ñoo fi dem coupe du monde Youssou Ndour gu mag gi Kumba ak Bassou tey. waaw kon liggéey kon ñuy soxor di wax siisu. nañ ñun. te xam na tubaab bi ñoo choisi indien yi indien yi ak japonais yi ak chinois yi ñoom ñëpp a choisi kon nañ nangu xam ne ba suum la yàlla dogal muy dem si kar da ko ñëpp ñaanal moom ko ñaanal mu dem ak jàmm ñëw jàmm ci barke Seydina Muhammad tala te da koy jigde ku soxor fii xam ne da ngay dem ku fi soxor xam ne day dem day dem bilaay euh, koy yàq xam nañ leen. mooy ñan tudd nga fi lëmbal léegi. non lëmbal yàqu fecc de. lan moo yàq fecc. fecc xam nga ku koy yàq kon yéen a a ngi baax daal. waaw yéen a ngi baax. mu ngi baax mu ngi baax di dëgër. di dëgër di dëgër day de. gëj. waa Rama namm naa la. yaa ngi si jàmm. naka gëj nañoo gisee. waaw gëj nañoo gisee torop gëj lool mo gëj nañu gisee. ni déedéet xeebu ma ko ndey gayee ñu ko defal rek dagal ñu ay hôtesse ñun ñëpp xam nga man sax tey mooy sama première sortie depuis sama yaay gaañu waaye lu mënul ñàkk faw mu am ndax bu ñu wootee ci wàllum danse noo def faatu ware day teew waaw may may may may may euh, baalu àq ñi nga xam ne ñëpp woote nañ si te génnu ma nag waaw boobu dafa fekk rek ma toog di jooy sama yaay pareegu ma waaye maa ngi nii dama ñëpp xaar barke Sëñ Tuubaa dañ la koy nangul ndax ku ne xam kooku sama yaay la daf ma yar euh, def lu bari ci ñun ñu nekk ay xale yu ndaw di ànd moom ndax gazel après ñoom ay dadadaa ñoom Penda Kayta sama mag maa ngi koy nuyu bu baax a baax a ñoom munaas ñoom jànke ñun ñoo ñëw les gazel yu ndaw yi daal di ñëw man ak ñoom caara ñoom boogaa muy muy loo xamante ne kenn dootu ko natable kenn dootu ko fàtte nee naa man gazel sax moo tax léegi ma xaw a nagam ndax dafay am loo xamante ne danga koy tàmm muy fecc ñu tàmm fecc di fecc di ànd ak Ndeye mu nekk koo xamante ne nag moom mention spéciale suñu mag la suñu yaay la suñu xarit la dañ koy ñaanal rek yàlla bàyyi koog borom këram bàyyi koog ñun ba ca kanama a kanama a kanam dañ koy ñaanal rek te bisam bi mu yàgg koo woote ñun ñëpp ñu di ko fekk si incha da ngay deseeru te maam booy jaaw dafa bëgg Ndeye Gueye buy dem Kolda day ànd ak moom jabaram bëgguñu ba ñoom dañoo dañoo bëgg artiste surtout maam booy jaawoo nekk nit ku baax baayu Badou Diawo moom tamit sargal bi il le mérite parce que nit lu mu mérité wul duñ ko ko defal mais sargal bi il le mérite bu fekkoon dafa doxalee neneen ak Ndeye Gueye Ndeye du ko sargal parce que xamul maam booy jaawoo kese dañ koy ñaanal moom tamit yàlla bàyyi koog le président de la république monsieur Macky Sall bàyyi koog njabootam defal ko jàmm ak tawféex loolu rek lañ koy ñaanal. tey ah, Fatou Waré lan moo waral dañ ko gis si ay clip yu bari. Euh, waaw yu ci gis man gis naa fi mu que clip Fatou Débel rek parce que gëj naa fecc torop ñëpp dañ may woo nag ku def sa clip dang may woo waaye Fatou Waré dafa ñëw fekk fi ñoom Ndeye Gueye ñoom Ndeye di fecc clip yi ba Fatou Waré ñëw. Fatou Waré di fecc clip yi ba ay rakkam ñëw dama am samay rakk ñu ngi fi à chaque fois bu ñuy def clip damay bëgg ñooñ tamit ñu progresser ñu gis leen parce que kenn du lekk ci bool ba ñu téye sa loxo te dafa am loo xamante ne mooy yoon waaye kuy def fii clip Sénégal barki maam Cheikh Ibrahima Fall danga may woo des fois man maay bëgg pousser sama rakk yi rek Fatou Guewel nag day sama yaay waa ma féetewu ci moom muy sama yaay féetewoog man ma féetewoog moom muy nit bu baax ma di ko nuyu sama yaay ji bu baax a baax a baax a baax moom lu muy def rek da ngay gis Fatou Wele mais tamit yoon la ma bàyyi sama rakk yi ñu progressé tuuti waaw waaw ma xàllal leen yoon bi baay leen la droit xam nga ne looy wax nii oh, oh, oh. waaw bàyyi li ngay def waa ma ciy profité moo gën a tax sax nit ñi gisatuñ Fatou Wele lu bari ndax ku la fees loo moo la yàpp loo xam nga Boubacar Mari Mbay day sama papa di sama xarit te bi may yewu di xëy day teel torop moo tax kenn gisatuma soirée te man xam nga duma sax baalkat kenn gisatuma ci yu baree bare bari ndax bëgg di teel a yow rek di ko servir ci li mu bëgg ndax Marème Faye Sall ba mu ñëwee dane servir la Sénégal kon servir Boubacar Diallo daf ma koy jaral ma teel a tëdd lool rek la waa bëgg ñuy bëgg rek kontaan continuer waa dëgg la lan nga nar tey fii si bés bi waa ñëw toog rek seetaan xale yi ndax namm naa seetaan fecc xam nga sama yaay bi mu gaañoo yàggul bàyyi ma ñëw seetaan. da ba. waaw damay seetaan tey damaa seetaan si. Ah, da ngaa miin sabar de. waaye tey moom damaa seetaan si moom. ba ci dinaa ci xam dara. tey damaa ñëw xool xale yi. waaw ci kanam ko waxaat. waaw d'accord.